waaw ah, bi ñu bi ñu bi ñu seetloo euh, mémorandum fichier bi ñu jot bi te suñu direction yónnee ñu ko ak fichier bi nga xam ne moom la administration bi yore woon seetlu nañu que ni am na benn différence su trois électeurs bon mais bi ñu posé question bi préfet effectivement jox nañu explication nee nag ñetti nit yoo xam ne ñun xam nañ leen ci tur fekk ñu leen ci biir kii bi il paraît rectificatif boobu def nañ ko et que fichier bi nekk ci biir saal yi en tout cas correspondre na ak euh, ak loolu donc ñett ñooñu ñu ngi ñu ngi ci donc bon nous pouvons donc c'est un problème qui est presque réglé donc tous les électeurs inscrits sur le fichier à 99 pour cent sont là xëy na peut-être les absents et les malades ñoo ñëw est-ce que yaakaar nañu gagner élection yi xam nga nee naa la ñun dañu am ñaari objectif benn bi ñun suñu groupe groupe objectif la à la tête y a le PDS dafay participer élection dañoo war a ñëw participer d'abord parce que dañoo bañ ñi ñu yaakaar ni PDS parti bu dee la parti tey la PDS gën a taxaw comme je disais tout à l'heure le PDS est encore debout et nous resterons debout donc PDS moo coaché ak coalition bi ñu am tey fii ci biir dëkk bi bon maintenant que ñu gagné que ñu bañ a gagné dana xaw a jafe parce que xam ñu système bi su gaañ yi utiliser système d'ébauchage systématique mais ni ko xoolee liste yi sax soo ko seetloo bu baax ñi nga xam ne ñoo nekk ci liste en face yi liste en face suñu liste mais c'est les ex-PDS qui sont dans les listes Momar Ciss moo ci nekk waaw Momar Ciss moo ci nekk maire Talla Diagne de l'autre côté euh, Ndiassé Ka maire de Kayar de l'autre côté ñoo ñu la Macky Sall débauché def leen ay maire ñooñu la fenq tey ci PDS de l'autre côté y a Babacar Ba ancien député PDS ñooñu la ñu regroupé fenq leen ci kaw ci PDS traditionnel bi nga xam ne moo fi nekk oui mais qu'importe fu fa nekkee it débauché nañu tey ñeme na ñëw di jàkkaarloog PDS voilà donc c'est des PDS qui sont face à des PDS mais ci biir liste yi benn PS ci nekk mooy Yeye Yali ñi ci des ñëpp APR doo ci gis kenn benn APR nekkul ci biir pour dire donc APR APR ñemeegul amagul organisation systématique bu tax mu mën a jàkkaarloog nit ñi moyen bi ñu am nag pour débaucher ñoom ñoo koy def trafic d'influence achat de conscience digg ay postes de responsabilité des des postes d'ambassadeurs itinérants des postes de directeurs ailleurs et cetera système boobu la ñuy débaucher maintenant maintenant que ma gagné que ma bañ a gagné moi mon problème c'est de participer te participer naa te damay gën a participer bon li ci des nag yàllaa xam ah. merci beaucoup ok merci. Ba tête LDR Yeesal. Euh, hmm. euh, waaw li ñu gisagum mooy nit ñi ñu ngi ñëw voté donc euh, yaakaar nañ ne dina continuer nii ba ba ngoon mu nekk ci calme ak ni nga xam ne noonu la war a demee parce que lii aussi lañ doon xaar ci conseil yi. Hmm. maintenant j'espère que au soir euh, du scrutin. notre liste dana génn euh, largement vainqueur voilà. li ñuy xalaat mooy ñu indi fa xalaat yoo xam ne dina jubbantiwaat décentralisation au Sénégal parce que ñëpp ànd nañu d'accord ci ne naam décentralisation doon na sooxe avant mais bi acte bi ñëwee daf ko gën a rëppel donc ñun dañu yaakaar ne war nañu mën a indi suñu xalaat ak suñu jëf pour que ñu jubbantiwaat pour que tegaat euh, décentralisation bi ci raay yi merci beaucoup.